moo dëgër nit boo bëggee doon sa sangi bokk dangay dangay fexe ba doon seen baay faal mm-hmm. lu ñu buub xëpp la lii euh, géey wax léegi mm-hmm. euh, di nga gis mbokk moo xam ni yàlla suñu borom nim la bindee du ko neex ak lam nam ci yow waaye kooku xam nga nooy def ba dimbali ku dimbali sa bopp mm-hmm. dee ko jox rek ñoo ko sa bopp ci kanamam dee ko jox ñoo ko sa bopp ñàkk bopp ci kanamam. ak bokk ak am bopp du ko du ko du ko doxal ñàkk boppay tax ak bokk dox. jigéen du ñu dafa ñàkk bopp ci kanam jëkkëram am doom ju waaye saa jigéen amee bopp ci kanam jëkkëram doomam ñàkk fayda. yaa ni. papa de la waxtal foofu. dama ne jigéen joo gis ñu ni moom dafa am fayda ci kanam jëkkëram doomam ñàkk fayda waaye saa bu ñàkkee bopp ci kanam jëkkëram bañ naa billaay moo ñàkk bopp ci kanam moom daal xaw ñu lu ko waay def. doomam dana am fayda balaa bu mu koy dagg doomam dikk. dëgg la de de. kon liñ leen di diggal aliment mm-hmm. mooy ak bokk juróomi ponk koy doxal. muy loo yor bokk ko say bokk. Mm-hmm. sama baay daf may wax ni ma àddina carte ak biscuit la loo dàq bokkal ak say bokk yi bala ñu koo dàqaat. nga àdduna. carte ak la loo dàq da ngay bokk say bokk di boo ko defut ñu dàqaat ko. <laughs> bokk ak say bokk yooyu loolu daf lay jàngal ne la teraanga ji lu la ci yàlla sunu borom jox bokk ak say bokk ndax yàlla ku mu jox fukk de la séddale loolu ku ne xam na lu la doy dama am sama benn xarit bu ñu wax Cheikh Mbacke njaay moom Baye Serigne daaru njaay moom Ibrahima Ndiaye ma ca Sookaanu mi ngi dénk fi ñaan danoo toog mu ne ma waatal naa li ci rasulillahi mën naa ah, mu ni ma ku ma bokkal Baye yaa ma gënal sama bopp ma ne ko waxoo ko da koo jëf jëmal tey ci ni liy defar société bi lépp Youssou Dieng soxna yee ko war a jëkki ci yéen la nekk xanaa xamoo ni Alima uh-huh. su ngeen baaxee rek société bi baax ñun ñi mais yéen a gën ñëpp sunu borom yéen la wóolu xamoo yàlla wóoluwul góor dëgg la de sunu borom lu tax yéen la sunu borom wóolu li mu gën a fonk ci àddina muy bànne Adama jigéen la ko dénk looloo tax ñuy wax ne réew mu la gën i soxna. gën lay ndaw. moo lay gën a dëggu. dëgg li may dénk jigéen ñi mooy nañu fonk seen mbokki borom kër. dëgg la. fonk seeni bokk fonk seeni dëkkandoo fonk seeni wujju def leen seen bopp. Mm-hmm. te wujjee xam nga. xam nga daba sëy mm. daba sëy sunu maam yi daawu ñu wujjee xëpp sa moroom buraas wala nga xëpp ko ndox mu tàng xam nga daa wujjee mm. léegi la yooyu xew dafa góone yaa ne am na koo tudd léegi doomi sëñ Thierno Diouf Lambaye la moom Aliou Koumba Naar Sëriñ Dame Diouf Lambaye Sëriñ Dame na téeméeri jabar day génne waxandeem seet cëri dénk yëpp jox ko ay wujjëm ba mu jeex mu toog di jooy wujjeel xam nga wujju ki nga bokkal borom kër du sa wujju kuy sa wujju xam nga kuy sa wujju ah. ki jur jëkkër ji la indi ci kër gi étage jënd kaat kaat yóbbu sa ndey màkk mu wóor na sa jëkkër man sa baay moo man sa nijaay man sa ja dëgg la de na xam nga jigéen du xam wilaayu jëkkëram du xam bon ak doomam du xam baax ak gu waaye jigéen am na ci ñooñ xam nañ ne seen jëkkër man seen baay moo man seen càmm dëgg la dëgg la xam nañ ne xam nga fi mu la génnee xam suñ la dugal. wallaay dëgg la yóbbu sama yaay màkk yóbbu sa yaay màkk yóbbu la màkk yóbbu say càmmeñ màkk wut kër dugg ci wutal sa càmmeñ kër. bu xewee xewee sama kër ma jikk sa fajal sama bopp bu xewee sa kër ma ànd yow fajal sa bopp. kon kooku sangala du du nawle. boobu kër moo gën sa baay moo mën sa baay. loolu nag laa leen di wax rëy jigéen ñi nañu fonk seen borom kër yi. Alioune wallaay wallaay dëgg la. li ma leen di dénk mooy ku bëgg am doom ju barkeel bëgg a doom ju am wërsëg xanaa xamoo ne bayre mooy bayre dégg naa ci benn émission ñuy wax ci feru fer bi jigéen di takk ci ndiggam fii lañ ko doon waxee defe naa de wala ci mbaboor mi ci ci ci fer wax nañ ci ak Fatou Lawbe woote naa keroog ñàkk naa ci crédit lu ëpp cinquante mille xanaa xamoo ni ga gàllar yëpp doolu ci àddina bu ñëwee suba la xale bii di dugg néegam góor. waaw. dafay fekk ndeyam am yetti fer yu bokkul. peme. ak képp. képp. ak fer bi ñuy wax ajida. ajida ah. day jàpp ba set toog ba trois heures du matin mu génne fer yi. yaag ko. ne ku tip. dagg. waaw. fu mu rucc fa fer benn per. boole leen moom la ñuy def mbandal moom lay takkal doom ji muy dugg néegam góor sa njëkk ya indil la fer yooyu mu ko jox mu takk ko bu duggee néegam góor ba génn daf koy takk ci ndiggam ci téere yi ndiggam moom ku góor ki duñu ko takk xala du yoom nga ni du tële nga ni cat du ko jàpp mhm. du gumba te dina am ay jabar yu mucc ayib dina am ay doom yu baax. ndax fer yooyu. ndax fer yooyu ko ndeyam takkal. Ah. Ah, waaw waaw. bu tax gaa yi xëy na war a de bokkul fer de. bokkul bokkul de ah, yooyu fer xam nga lu mu daa jar. fukki jaam yu góor fukki jigéen nga jaay jooram benn fer. bokkul de képp. dafa am képp am ak peme. waaw. macha allah. yooyu ay yëf yoo xam ni alima. li may ñaan mooy man li may dénkaane mooy jigéen ñi mhm. ci ñi ma ko war a wax mhm. nañ muritu seen boroom kër yi dëgg la ndax damay wax ni ku muritu sa borom kër yàlla dina la may doom ju baax dëgg la sama maam dafa ànd ak man sama maam Lat Koddu la tudd paar la xàndanda dëkk dafa ànd ak Kocc Barma mhm. man Lat Koddu mi jur sama baay moo Kocc Barma ñoo doon ànd ndax jamatil la sama maam dëkk jamono Kocc Barma buñ ne Alima Ndione dafay maye doomam muy sëyi mm-hmm. Sénégal yëpp dañuy màbb ñëw di nga rey lu ma téeméeri nag añ ak ndax li ñuy wut si bëgg a déglu continuer wax seet bii ñuy yeb muy sëy xam nga li ñuy wax yeb du yeb mm-hmm. ay bool ndekete du yeb cin yi du yeb inde yi du yeb yeb mooy dañ lay muur dañ lay dañ lay jàppal jàppam benn benn say bàjjen wër la ak say doomi bàjjen ak say doom yi nijaay say tànk wër la wujj yi nga xam ne ñoo say ñoroon ñoo doon sànneen tey mbàttu kenn ku ne toog nga jublu penku tàllal say tànk eh. ñu jël am njoor lal ko nga toog ci ñu jël ñaari séer dénk muur la ko di la xasloo am bu ñu doon maye ci njukki sama maam jiitu ko ci bar mu ñëw ba tolloo ak buntu sàkkeer yi dégg ñu ni ayda yuusu jeng sa nawlee de ay Aïda boo demee ci Youssou Dieng da xam ni Youssou sa nawle sama maam dëpp. sa nawle ngay fekki. waaw. mu dëpp. sama maam dugg ci kër gi dafa dëpp ak fasam. ndax lan. bi mu dajeeg maam ko ci bar mu ne ko lat kott mu ne ko faal mu ne ko ah dañoo waral ba pare mu ne ko dee war luñ sëy baa tas. ah jigéen ku ko yeb ne ko sab nawle ngay fekki yaa tas. sam nga lay fekki. ku koy yeb di ko muur muy sëyi nga ne ko sam nawle ngay fekk yaa ko tas. sëy doo woo jëkkër du jëkkër jëkkër du nawle sang la. wallaay dégg naa dëgg sàmm. alima daal foofu mooy fi ñu toll. kontaan nañu am nañu métti. di wax itam góor ñi nañu yërëm jigéen ñi te teral leen te sagal leen. dëgg la. xam nga muur gi ñu koy muur guddi alima dañuy cax góor gi bi kay dem kër moor maan dañ laa muur jël ñaari sér toog ba deux heures du matin teg ko ca bopp teg ci kaala takku ko xam nga foofu lu ñuy wax Morman yi. luñ ko wax. dañ ko naan Morman kiñ la jox dafa lëndëm. matul moor Morman kiñ la jox. xel mi dafa gàtt. dëgg la Mor kiñ la jox dooleem dafa néew. Mor Maane kiñ la jox bàyyi na kër ndeyam kër gum miin. Mm. Mor Maane kiñ la jox bàyyi na lal bi yaayam bu nooy bi. Mor Maane kiñ la jox doonte sëy na daana uufu ci ndeyam. na ko nëbbal. Mm-hmm. na ko suturaal. na ko teral. na ko dëkkal. na ko dëkkoo. su feebaree na ko faj. boo feebaree faj sa bopp. su xewlee jëm ciy bokkam jox ko ànd ak moom dem ciy bokkam. say bokk xewlee jox ko ànd ak moom dem ci say bokk. papa yaa ngi wax yu ñu bëgg ñun jigéen ñi wax nga yu ñu bëgg waaye yi bëgg loolu lañ doon wax parce que sama baay daf may wax ni ma jigéen bi ñu ne moo gën a bon ci àddina uh-huh. ay milliards la war a jar mm-hmm. bi gën a bon bi ñu ne moo gën a bon ci àddina ay milliards la war a jar jërëjëf Samb amul amul amul njëkk amul alima njoon wallaay yëpp baax te dama bind dama def benn chapitre su ma juumalee maa ngi ko bind 2002 wala 2003 parce que man damay jàngale wolof dama ne lu jigéen def ci naka sudut noonu góor a ko def loo wala ñu ànd ko def ma bind ni sàcc bi sàcc waruñu koo jàpp kim jaay liñ sàcc lañ war a jàpp ndax sàcc bu jàppee te kum ko jaay ngeen duma ko jënd bu yàggee doon sàcc reseleur la kon jigéen amul benn jigéen bu bon jërëjëf Samb da koy formé yar ko euh, tey dafa am ku ma laaj ci benn télé démb ni ma lu tax euh, góor ñi euh, bu ñu xuloog seen as ca mbedd ma mhm. buñ dikkee seen kër xuloog seen jabar mani ko jabar ju mat jabar dëgg dëgg dëgg dëgg bu jëkkëram xuloog as ca mbedd ma su dikkee ci kër gi bu see bu ko fisee mu toog da koy fàtte mu ni ma nu muy demee ma ni ko jigéen ñi nañu bàyyi bala ñoo takk lami or bala ñoo puudaru ah. jëm ci xew puudaru jigéen sa jëkkër a ko waral ma eh, xanaa xamoo ne eh, sama doom sañse sol mu mu jar million takk or janjaari wu xeeñ eh, samsara gerle mais même bu dee dix mille <laughs> même dee dix defal ko waa ji defal ko waa ji alima wallaay Samb wax nga dëgg loolu mooy dëgg waaye bu fekk dama ne jigéen ñett yi soo ko defee <laughs> sa jëkkër dox meetar neex tont neex xet neex togg yaa moom sa jëkkër waaye bu sa xet neexut sa tontu neexut sa togg neexut Fatou Mbaye nekk ci biti loolu la Ndeye Diallo di def madame la maire ajaratu ni monsieur le maire dafa war a gën a kontaan ci moom riole waaw jigéen daal balaa tilim na fóot bu yeewoo na sangu na takk li mu am lay defal moor